حامل اللواء الإسلامي ومجدده خادم الرسول الشيخ أحمد بمب نفعنا الله ببركاته آمين mbokki lislaam bépp rawatina nag mbokki taalibe yi murid yi yi ma bokk Cheikhul Xadim maa ngi wax ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di ziar di leen ndokkeel di santaat yàlla toogaat tey jataay bi jataay bu gàttali doon ci ay wax yoo xam ni eh, wax yi jib la eh, am ñoo xam ni ñoom la leen gënal wala mu laal seen xel mooy ma jël kàddu gën a leeral loola na mu demee kàddu yi daal maa ngi ko tàmbalee ci ñaanu Sëriñ Tuubaa gi mu ñaanoon ca téere bi mu tuddee duwaawul kabir fi ñaan gi nekk sëriñ Tuubaa wax ni auzu billahi min xalilin maakirin aynaahu tarayaani wa qalbuhu yaraani in raa xasanatan dafanaha wa in raa sayiatan azaaha loolu sëriñ Tuubaa ñaan foofu rek wax ji yëpp sax man na yem ci ñaan googu sëriñ Tuubaa dafa waxoon daal maa ngi muslu yàlla yàlla ma yàlla musal ci xarit boo xam ni boromi pexe la te pexe yooyu ñaaw lay def ay bëtam mi ngi ma koy xoole saa su nekk te xolam mi ngi may sàmm mel nii sàmm bu yor tam di sàmm ak jur su gisee lu rafet lu baax mu def ko mu nëbb loola su gisee lu ñaaw lu rafetul mu def ko mu siiwal loola suñ tura suñ bi nee maa ngi muslu ci xarit boobu kon loolu rek la nit ki moom loo xam ci moom ci lu ñaaw xam ngul ko ëpp coom ci lu baax kon moo tax sëñ bi waxoon na waxal ko waxal koy lu rafetam ndax man shagalahu aybuhu an uyubi nnaas koo xam ni dafa xam ni li man shagalahu aybuhu li man shagalahu aybuhu an uyubi nnaas yoon fasalam nee texe mooy ki nga xam ni ay bi boppam moo ko gën a itteel ay moromam ndax nit ku nit mu mën doon boo demee ba defe ne amatu ayib rek boobu ayib bépp daje na ci yow nag waaw kon euh, dañoo wax ni weddi du du du du du ragal dindi tuuma la jaru ko sax jaru ko sax ndax suñu sa dafa ni boo waxee dara nga weddi buñ la waxee dara nga weddi ko ah boo waxaatee buñ la waxaatee leen weddi ko ah, kon daan akoon lii moo ko wax te kenn mënut a weddi lépp waaw ah, kon daanaka ah, moo tax jaru ko daan na wax it ni ñett yi ku koy def doo egg ci góor yàlla yi mooy werante ak téesante ak biddante te lii day mel ni loolu lay doon day mel ni werante lay doon wala sax teesante lay doon euh, te nee na ñett yi koy def doo bokk mukk ci góor yàlla yi muy werante ak teesante ak biddante ndax euh, bëgg mu woon sax di ci wax waaye comme leen wax rek nit ku ne am na ñu la bëgg am na ñu la bañ ñoom ci taxaw ni foog nga sànni ci ay kàddu bu kàddu yi itam euh, weesuwul sëriñ bi it daf noo digaloon ni noonu rojalisum te in azita jawaban rubba qawlin jawaabuhu fi sukuuti euh, sëriñ taa bindi ca ca nax juba nee na bare na du wax yëpp la ñuy tontu am na wax yoo xam ne boo noppee rek tontu nga waaw <laughs> kon wax yii ñooy wax noonu te ñu koy wax itam euh, euh, lañ ci jublu xëy na lañ ci jublu ndax yàgg loolu congu ko yàgg la ëpp na ay ati at la ñoo xam ne ñu ngi jog rek ndiir yàlla moo dogal noonu xëy na neexoo ko wala bëggoo avancé wala bëggoo suturaam wala bëggoo ko bëgg loolu song yox yàq yi mënoon yàgg na lool waaye ma leen di xamal ni man yàlla dogal na weesu naa yàqu weesu naa yàqule weesu naa ku ñu yàqal loolu ba Cheikh Rafal dafay sama digg loolu tey ren ji mooy fanweeri at ak juróom benn du may yàqu du may yàqule kenn mën maa yàqal dara it nag xaw nag ci wax ak jëf maanaam Cheikh Rafal moo dox sama digg ñett yooyu du may yàqu du ma yàqule kenn mën maa yàq kenn mën maa loolu Cheikh Fall laa koy sant te ba mu ko defee léegi ren jii mooy fanweer ak juróom-benn kon loolu daanaka loolu na am na loolu ku ñu ko defal ah doy na ah eh, li ci des itam ah, man de ku ni ma tuubal ma tuub <laughs> waaw waaw ndax inna allaha yuhibbu tawwaabiina su borom ne man maa bëgg ñiy tuub a man man man man jëf ju keneen def sax wala wax ju keneen waxtaati du man sax ma tuuba tuub ko tuuba ko tuub ko man am na ci ci mag ñi ku bi ñu tuubal tuubalul kii mu ni ko duma ko tuubal ndax tooñu ma ko Cheikh dafa ko ah, ah diw tuubal ah man di tuub naa ah, tuub naa kon tuub eh, man de ku ma ñu tuubal nagam man ma man ma moo ko man waaw ah, man laa wax ndax fi ma ko tegit mooy inna allaha yuhibbu tawwabina su borom ne man yàlla maa bëgg ñiy tuub ak jéglu eh, eh, am na nag tolluwaay bu bu fa nit ki tolluwul li ngay wax daanaka mën na ko ba ndax imam malik borom ngir mi dafa ñëw ci jàkka ji julli takkusaan toog ab diir am ku ñëw ne ko xum warka jogal nga def ay rakka mu jóg def ñaari rakka mu ne ko waaw yow yaa waxoon ni naafila ginnaaw takkusaan dañ koy tere lu tax la léegi man la jógal rakka nga jógal defar ay rakka mu ne ko waaw naa bañ bokk ci suñu borom di wax ni wayaa qiila irka'uu laa yarka'uun yàlla wax ne bu ñu leen rakkoo leen du ñu nangoo rakkoo wax jooju laa bañ bokk ci ñooña waaye gannaaw takkusaan man maa gàntuloon naa fi la gis nga gis nga loolu waaye yaa qiila irka'uu xam nit dana def loo xam ni euh, parce que loolu tolluwaay daal tolluwaay la imaam Malik fa mu toll euh, moom kii moom dafa gàntal naafila gannaaw takkusaan kii ñëw na ne ko jogal naa fi la gannaaw takkusaan mu naa fi la mu ne ko lu nga gànt ko ma wax la ko nga def ko mu ne ko ci ñale yàlla wax ni bu yaa xëy xam ne kaw daal ko bu ñu leen bu ñu leen ne rakkoo leen duñu nangoo rakkoo nga xam ne fa mu toll ak fekkee toll daanaka bokkuñu bokkuñu dara may itam loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy man daal yoonu Sëñ Tuubaa yii euh, lu ma ciy wax ñu ne ma dafay yàq wala ma jëf ci ni dafay yàq ak ku ma ko mën a wax ak ku ma doon seetu ma nag koo mën a doon seet ma itam ndax du ma liggéey toll comme nee ñu ma gënul rek wala am na nooñu ko war a waxee rek man ma ma génn ci loola ndax man sëñ bi defaral ko rek ndax sëñ ta moom weesu na ku ñuy yàq ku ñuy yàq li moom li fi nekk mooy di ko defarle ba defaroo ca waaye di ko yàq ba yàqoo ca rek waaw nun nag façon yéene di ko defarle ba defaroo ca lu wax baax baax lu wax jub jub lu wax tegu tegu ci ci ci ci ci ci ci téere yi te te am ñu ñu jóg ni wax woo jooju waroon ko waroon ko waxee noona wala baal bii waroon koon waxee noonu man man ma ma bàyyi loola man ma ma jéggul ma ma ma jéggulu ña ko déggoon te su ma koy waxaat waxaate ko neneen loolu loolu loolu loolu loolu rek la waaye eh, eh, ñu koy dégg rek ñu xam ne daal wax ji daal du du du du amul du du du man daal du lu ma amal solo daal wax dëgg yàlla du lu du lu ma amal solo ñii jóg itam di di ni dañuy defaa ndar yoonu murit wala ñuy defaa ndar eh, tasawuf sophisme sophisme imaam Junaydi bi nga xam ne mooy mooy mooy sëriñu ku kuy suufi yu mooy sëriñu ku ku kuy suufi yi rek imaam di mooy sa kilifa mooy sa sëriñ ak koo mën doon ba muy def ci tasawuf ak li mu ci doon wax boobu ñi tey di wax nii seeni maam sax judduwuñu xam nga xam nga waaw kooku kooku lu ñu mën a yàq ci wax sëñ Tuubaa euh, ñii dafa sëñ Tuubaa dafa jëf jëf bokkuñu waaw ku jëfal yàlla ba yàlla gërëm ko yonent bi gërëm ko ñëpp gërëm ko jox mbiram ku defañu nag loolu ay wax man na ko ma ñoom ñooñu di contre suufi yu ak di contre mutasawifun yi eh, eh, dafa ni seen wax wala seen dem ci rajo yeeg bu ñuy dem buñu man de man de man de man nangu ko dem ci rajo yi ci àddina bi yëpp ak télévision yeeg ndax man dama amul jot loolu man ñi xëy di seet internet ki ay facebook ki ay ay ay ay whatsapp ban bañ na ko man aw ma sax whatsapp aw parce que yooyu ko man li tal man yaakaar man sama man man li ma war a jàng ci alxuraan ci bis bi ak xasida loolu xajul sax ci bis bu faf kooku boo tal ma sax di xool sool ay ay facebook ak nee ñu loolu ama jotam yàlla xam na ko téléphone ordinaire bi laa ci yorte lu néew laa ci wuy dafay tardeel nit gis nga facebook ak yi ay whatsapp yi day tardeel murit buy dox fa murit bu doxul nag maa nga ci nekk di xool ak def yëf waaye xëy murit bu xëy yaakaar Sëñ Tuubaa booy fekkee da am rek loo bëgg xool xool alxuraan yi waaye di xool loo xam ne daa gis ñu xas sa sëriñ daa ñu xaste ku la gën wax ca lu ñaaw di waxante lu ñaaw di defante lu ñaaw koo xam ne kii moom ngi xaar rek bu wax nit wax ba mu jël wax jeeg mm, commentaire ko ne ko job kooku man man ñooñu tax man ñooñu ñooñu euh, sëriñ bi bu foo xoon ni ci misaal nii wala ubali bésawi ankaar yi man faalewuma ñuy weddi waaw kon bu kee sëriñ taa moom faalewu ko weddi man doo wax faale ko weddi ku bañ ku bañ ñu weddi la doo wax lu ñëpp d'accord moo am ñooñu def défendre suuf yu dañuy sol seen bopp rek mënuñ ci dara dégg nga mënuñ ci dara maanaam du ñëpp d'accord fokk am ñu bañ waaw li yonent bi bind mi def te dafa am ñu lànk dégg nga yàlla sax ci am na ñu ne amul waaw waaw lu ñëpp d'accord amul waaw lu sëriñ bi baax baax yonent bi gën jëmi def li ñu ko wax kenn du ko waxal kenn ci ci lu ñaaw ci wax yi tegul fenn sëriñ bi noonu sans waa ji di Cheikh dafa waaye jiitu na gars yi koo gis ñu koy tuumaal rek di teg ci ay waxi ñaar kooku ma ngi ma ngi wéy waaw waaye man ñii am jotu dem ci ay Facebook ak ay internet ak ay ay ay WhatsApp di di ci xool di wax na li rek ñee commentaire nañu nekk man dama leen talut man taluma loolu man man li ma ko waxee léegi man li may xëy jàng ci euh, alxuraan ak ci ci ci bi ak ak alxasida dafa xëjul sax ci bis bi moom mu ngi sax WhatsApp une heure temps min benn minute WhatsApp sax aw taluma ko man kon man ñooyu kuy wax na nga wax man man man bi ma ko waxee loolu mooy am man man ak looy mën a jublu ci wax ja man weesu naa yàqu weesu naa yàqule weesu naa di ku ñu yàqal loolu Cheikh Rafal wax naa leen ni leen du ma bu doxee moo dox sama diggal loola boo ak ren jii mooy fasilaatu juróom benn kon lu neex waaye na wax man daal fii laay nekk ci gàttal <laughs> maa ngi eh, eh, eh, ni mu ko waxee rek am na ku ne am nga ñu la sopp maa ngi maa ngi wax sopp yi ak wëldër yi xëy ni leen wax jógi daal a bu àddina bépp doon ci wax ma maanaam moo haba an mansuran laa ko jàppe du waxi dara moo ngel luy laa yemale lu neex waaye na ko wax lu waaye na ko man sama yéen man du ma man du ma kenn du ma lenn waaw man man ma wax ci man ma man man man du ma man man man man man moo kenn du ma man daal ba faar laa waaw bàyyi faar laa daal boo xam ne jébb naa sama Cheikh dafa laa bàyyi ak sama bopp waaw sëñ Tuubaa wax naa ko yàgg ne ko bu mooy bu yëwal xayamee sëñ Tuubaa na ma bàyyi ak Cheikh Rafal man foofu laa nekk yi ci des moom moom moom ma ko yi ci des nag euh, ñooñuy wax nag ah nañu wax <laughs> naa loolu ñëpp man daal wax du ma ko duma ko dégg wala yàlla xam ne lii ma wax sax bu ma soñoon ko wax waaw waaye ñu xam ne daal ñii la demee ñu xam daal man daal man daal man daal euh, yéen sëñ bi daal dama da ko defarle lu ñu ma wax la xam nag lii xëy na gënul walla baat bi euh, waroo koon waxee noonu bu ko waxatee wala jéggalu ko wala tuub ko man kuy ma tuubal ma tuub ni ma ko waxee a daf ci laay baamtuwaat kuy ma waxal astaxfirullah ma wax astaxfirullah kuy ma jéggalu ma jéggalu ah loolu man man moom même bu ma ko deful sax ku ma di jéggul ma jéggul même bu ma deful ma ma woon benn bàkkaar ku ma waxal astaxfirullah man la astaxfirullah ku ni ma tuubal man la tuub la loolu loolu loolu la waaye du wax joo xam ne nag loolu laa ci jublu loolu laa ci jublu euh, kon ñu xam ne daal moo bu du tegu du tegu fenn daal waaw lii daal ci gàttal man moom la ak doon wax euh, man fi mu nekk baa nga fa euh, lépp looy wax ci man nag euh, ak loo ca mën a jublu daal moom daal li ma di wax nag moom daal moom daal man daal weesu naa ku ñuy yàqal weesu naa kuy yàqu weesu naa kuy yàqule loolu baamtu naa ko baamtu naa ko loolu Cheikh dafa dafa dox sama digg yooyu waaw kon fii laa nekk lu waay lu waay wax baax na lu waay def baax na man daal fii laa nekk waaw <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu